Euh, doon ndokkeel si seex Muhammadul Muntaxa Mbàkke ak di ko tàgguwaale tamit wan ko ne ko euh, màggal gi di ñëw beneen président la jàpp na muy ñëw toog fi sawet di ànd ak yow màggal gi waaye moom euh, jeexal na ci réew mi ngir dem ànd ak soxnaam nag muy soxna fay soxna Marème Faye Sall bu leen fàtte tamit soxna Marème fay Sall wax nañ ne lii ñuy tuddee fondation Sénégal Service Sénégal boobu tamit dakkal na ab yëngoom yaakaar naa tas na ko sax ba loolu amatul kon ñoom mel na ni ñu ngi ci wàccaay woo xamante ni li ci des na nga bariwut ndax li des ci ñu jeexal daa baritul ay weer moom daanaka koo xamante ni tàggoo bi nag danga ciy jàng lu bare bare bari da ciy jànge eh, àdduna lu nuyoo rek dana tas lu tëgg rek dana tas mbir mu nekk nag dal ga ak tàmbali mbir ma lu ci nekk jar na jàng mooy tàmbali mbir mi danga ciy jànge bu baax a baax jeexalug mbir mi danga ci ciy yóbboo beneen leçon boo xamante ni daf lay amal ci sa kanam loo xamante ni pour ëllëg ku nekk xam na ne nguur moom yàlla moom moo koy joxe allahumma malik al mulki tuutil mulki man yàlla ci sun borom tabaaraka wa mooy joxe nguur jàpp naa ne président mag sàll ku nekk xam na ne at yële ca ginnaaw nekkuma ci xelam nekkuma ci xolam waaye jortu naa ne xelam nekkul woon sax ne day doon président ab Abdoulaye wàdd loolu mësut woon doon VM mais ku yàlla tudd ne nguur day nekk ci sa moo la koy jox kenn kenn kenn ku ci man dara wala lenn lu ci man dara amul bu la ko joxee dalay joxaale kàttan joxaale la lépp joxaale lay tamit ay matuwaay ngir nga wuutu ko ci jaamam yi nga wutu ko ci jaamam yi jaam yi nag amul lu ko ci wóotoo sunu borom lu dul di moo tax sunu borom ne irhamu man fi lar yarhamu man fi samaay yërëm leen ñi ci suuf ndax ñi ci kaw yërëm leen kon koo xam ne dafa xaaj ci nguuram fell ci fel fell fel fellaat wa gën a ndaw jox la ko kooku am na lu muy séentu démb nag waxal nañ ko réalisation yi nga xam ne def na ko Touba sëriñ bi sant ko ci bu baax a baax sëriñ bi sant ko ci digganteem ak ni mu ko jàppee ak moom it président sant ko bu baax a baax a baax a baax euh, day fàttali rek bi nga xamee ne président ah, Senghor ñëw na fi di jox Abdou juuf nguur gi bi mu dikkee la ma waxanteeg si ñëpp laat moom it ne ko euh, maa ngi dem maa ngi fiy bàyyi ki nga xam ne moo di Abdou juuf ndax Euh, gis naa ne ñi ma àndal sax ñu ci bari moom la ñu gën a bëgg te démocratie mooy lépp lu askan wi gën a bëgg ñu bàyyee leen ko kon bi mu fiy teg Senghor bi mu fi teg Abdou juuf loolu si Senghor ku delluwaat ci kàddu yi dane dama gis ne nit ñi ma teg fi Abdou juuf sax moo leen gënal te démocratie ñi ëpp loolu la ñu wax te démocratie loolu la wax kon nag moom moom nag wuute na tuuti ak ki nga xam ne moo di président Macky Sall ndax président Macky Sall Euh, kii lii ci nguuru Senghor la bokkoon mu may ko mandaam président Macky Sall nag dafa jël màndaam ba mu jeex ba def ko ñedd ba mu jeex mayeegu ci dara kon sénégalais yi ñoo am choix pour tànn kan mooy fi wuutu président Macky Sall dëgg la nag moom moon war a organiser élection yi kiyel nu donte am na parti tamit parti boobu xañ na yéeneem ak xalaatam mooy ki bu sañoon jiw sàngam la fi bàyyi ngir mu wuutu ko fi waaye loolu mi ngi delluwaat ci coobare sunu borom bëgg-bëgg la rek waaye coobare sunu borom mu ngi kii benn bi ci des tamit mooy euh, Abdou Diouf laa bëgg a wax président Senghor bi mu ñëwee dafa wax euh, sëriñ bi maa ngi lay sant di la gërëm ndax liggéey naa fi nangam wax yu bare bare waaye tontu li ma ci gën a ittee rek lu sëñ laa Lahad sëñ Abdou dane ko yow de bu la réew mi sante fukk war nga leen di sant téeméer ndax ñoo la fal jàppale la te warunu la buñ la waroon sab liggéey du mën a àgg kon buñ la santee war nga sant sëñ laa sax ku seetlu loolu nuyoo ba def ko wóor tuy ba noppi nag daal ne maa ngi nga may ma nag ma wax ak sama mbokk jullit yi ñi nga xam ne bu sunu borom di wax innamal mu'minuna ixwatu ñoom ñoo tax sama mbokk yooyu nga xam ne mooy sama mbokk jullit ñu bokk kaaba ga maa ngi leen di nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk julit yi. daa di nuyoo nuyoo mbukki boobu nga xam ne ku ko fàttali ko rek waxuma ko ko fekke woon jataay waaye ku ko fàttaliku sax mu def ci yow jeexit daa di koy wax loolu daa di noona lanu tàggoo waaye kii tamit sëriñ bi sant na ko wane na jàppale na ko ci liggéey bi mu fi daan def ak lépp lu mu mas a bi def na ko moom it ñu ngi wane na relation bi ak cofeel gi ak mbëggeel gi ak taxaw gi loolu mënut jeex ba président nee na ko saa bu ma dikkee sëñ Tuubaa rek nga may dénk moom booleel loolay tamit kii na président wax na ko wax na ci biir wax ji ne euh, li nga xam ne moo di constitution bi ak li nga xam ne moom la constitution bi may dina sàmm réew mi ba kara mu fiy jóge loolu moom jàpp naa ne wax dëgg yàlla président ba jonne te yow la ko nit ñi di laaj yow la ko sunu boroom di laaj ndax lan yow lañ ko dénk ba léegi loolu moom jàpp naa ne yaa ko war a sàmm ba léegi ñu ngi lay ñaan nga sàmm ko nag sàmmin woo xamante ni euh, danga ci am ndam beneen mooy wax na ci mbiru pétrole nee na pétrole fu mu feeñ ci réew yu mel nii ah nanu xam ne lu bari mën na fa am ndax ay coow ak nangam loolu it ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo fi feeñal pétrole mu dollil nu jàmm dollil nu xéewal ak wér te sàmmal na ko moom mi nga xam ne moo ko génne ci coobaray boppam keneen ki ko fi wuut yi tamit kooku moom wax dëgg yàlla bu doon ci xel rek ak ci élection rek ñu bàyyi Ousmane Sonko mu dem jàpp nañ ne Ousmane Sonko moom daanaka président Macky Sall mënoon na ko dénkaane ne kii moomu fi wuutu loolu moom bu fekkoon élection am na Ousmane song bokk ñu dem élection yu normal daanaka xawoon na ko wax ne ko Ousmane song mii laa leen fi bàyyeel mu yoral leen réew xaw ma nag Ousmane nan lay def xaw ma dina dem élection xaw ma du dem waaye lu ci mat a ñaan rek mooy ñaanal ko ak wér ndax Ousmane wax dëgg yàlla ni ko nit ñi waxe ñi ko gis nin koy xabaare loolu moom lu tiis la na ko yàlla may ak wér yàlla delloo ko sagoom delloo ko wéram delloo ko xelam delloo ko léppam ba li mu yéene ci réew mi moom it sunu borom euh, mi nga xam ne mooy joxe nguur te mu bëgg ko mu laaj ko sunu borom ak askanu Sénégal laaj ko askanu Sénégal euh, loolu naa wax na ko nee na bu nu war réew mi kon ñi fi bàyyi mel na ni moom ni mu waxee xañ na peuple bi lay waxal ak kin bëgg fal kin bëgg jiite ne bu mu war réew mi waaye ginnaaw mi nuy tànnal moom it na tànn koo xamante ni loolu yi muy wax ne bu mu war réew mi bu mu kii réew mi loola na ko seet bu baax ba ki mu fiy tànn bu fekkee yàlla dogal na loola yàlla fekk si ko kookoy tamit bañ a war réew mi kooko bañ a war réew mi loolu ñu ngi koy fàttali président ak kii beneen bi ci desaati tamit mooy Cheikh Bara Ndiaye xam ne ne tijji nañ ko déggal nañ ko loolu it ñu ngi koy sàkku ci président Macky Sall mu defal ko Ousmane Sonko te am nañ ci njort sax yaakaar ne war na koo def ndax loolit it bokk na ci mujjam ndax euh, mujj gu rafet loolu ak mujj goo xamante ni xol yépp dañuy dellu siwaat féex te Ousmane songo benn nit la boo xamante ni daanaka lu ko metti day bari ñu mu metti loolu yàlla moom moo ko defal ci xol yi Ousmane day bari lu ko metti loo xamante nii day metti nit ñi sax ndax loolu mbirum yàlla la du du mbirum boppam ka alfu rajulun alfa xiimatan ko kenn koo xam ne daanaka xaw na wecc junniy nit wala ay million nit euh, loolu jàpp naa ne kii na te loolu li nga koy xamee mooy fi ñu toll rek ñi dugg ci kaso bi daanaka ñi ci dugg ñëpp da ngay wax ne rek Ousmane song la doon défendre wala dara ay junniy nit ak nangam kooku jàpp naa ne xañ na nag doon na leen wax ñuy waxee sago ak di waxee ci xam-xam di seetantal na loola eh, ay njuumte làmmañ moom loolu kenn du ko bañ ndax yenn saa yi làmmañ tar tar tar tarxiis wala mu wax loo xamante ni da ko waroon a junj wala mu waroon koo jege waaye dikk ne ko tës loolu xañ na accident làmmañ la loolu yàlla na ci yàlla musal ak i tamit eh, làmmañ dafa am yu koy kii mooy wax lu wees warut woon a wax ak eh, bàyyi lees waroon a wax maanaam bàyyi lees waroon a wax ak wax lees lu warul lu warul woon a wax loolu dina daal làmmañ dina dal waxkat yi maanaam wax lees warul woon a wax ak bàyyi lees waroon a wax loolu dina daal wax kat moo tax kon président ñu ngi koy sant moom it ginnaaw dem na bay débri réew mi loolu cant rek lañ ko mën a def ndax mënoon naa taxaw mooy ci ne du ko bàyyi waaye comme nee na da koy bàyyi ndax gis ngeen la xew fële nga xam ne moo di Gabon yooyu yëpp mënoon nanoo dal te loolu nuy siwunu kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal fu mu jëm moom it yàlla fa yiwu yàlla jëm ak yëm ndax kenn mënul wax ne liggéeyulul réew mi di yàlla liggéeyal na réew mi kem li ko yàlla àppaloon ak li ko yàlla wërsëgale woon mu liggéey ko fi xanaa benn fàttali mooy masaalikul jinaan bi yaakaar naa diggoon nañ fa morgue loolu moom ñu ngi koy fàttali président moom moom itamit ndax lu nit ñi aajo wala lu nit ñi aajo wala nit ñi aajo wala foofu kon ñu ngi koy fàttaliwaale président yaakaar naa yoonam ba waxoon na ko euh, lii daal mooy taxaw seetlu bi ñu ngi nuy suñu benn xarit nag bu ñuy wax Abdou Assis Wan Abdou Assis Wan dëkk fële ca